Boy Niang Ama Baldé Sa Thiès comme tey Jackson egg na plafonné mhm. ndax dara mën nga fexe ba du dugg dans la cour des grands. Abdoulaye Jackson Sénégal yëpp dañu ne risque nga jël ci jël Lac Rose léegi kanam nag borom moo koy fajal boppam lan ngay wax Sénégalais yi ndax la tey ko indi waaye ciitoo ragaluloo ndax ku la xam xam ne ndaanaan nga ci wàllu lan ngay wax sénégalais waaw Lamine maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant yàlla bu baax di jul si yéen bi sant suma ñaari waajur di ñaanal suma yaay fu mu tëdd yàlla na gën a mu jógee di ñaanal maire ak père Bakar Seye ak imam Amadou Ndiaye yàlla na yàlla yërëm taxare àjjana di ñaanal père Gaston yàlla na ko yàlla yërëm taxare àjjana di masawu bakkan bu baax a di nuyu waa Géewaay bu baax di nuyu waa Waalo di nuyu waa waa Buun ñëpp waaw di nuyu suma grand moo muy grand Ibrahima mu dalal ma fii Kaolack di nuyu waa Kaolack yëpp di béy ñëpp di ziar ñëpp di nuyu grand béy bi ma dal ñoom Elton ñoom Amzian ñoom xale di nuyu suma adversaire Lac Rose waaw dañ ñëw pour remporter le deux juillet yal na yàlla suturaal le deux incha allah ñu def mu daan defaat ay ca Lamine waaw dañu ñëw rek pour lamb rek lamb moo ñu boole ama dañu ñëw pour signature pour remplir contrat bi di ñaan yàlla le 2 juin incha allah yàlla may ñu ndam yàlla suturaan ci kaw la rose ba rek la rose fan la la mën a yóbbu waaw bu ñu mën yóbbu bëri na parce que ay xale lañ ama la boo xam ne bu ñu jógee rek si grand frère yi kon lamb ñu kafe wuñu ko fooyoo ñu ko kon doo ko café doo ko foye ah Lagros au soir du deux jëla ban bi Sénégalais yëpp dinañ ne l'expérience face à la jeunesse dañuy wax l'expérience de Lagros face à la jeunesse de Jackson lan wut ci xale bi loolu la adduna di laaj waaw ah, comme moom ñu ko waxee dañuy nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu waa Kaolack di jaale suñu père Gasson fu ma làmb la ci champion la moo tax làmb boole ñu war a bëri maa ngi ñaan suñu borom sukuraam maa ma daan ci kaw moom incha allah. loolu wut ci moom question la. waaw làmb la rek làmb la làmb moo ñu boole ñu war a bëri te yaakaar naa ne combat bu neex la ñuy bëri incha allah ndax moom du daw du dellu ginnaaw te man tamit du ma dellu ginnaaw kon dina neex incha allah. contre deux lay doon fële nga xam ne moom mooy ci arène nationale doon tax. Jackson sama question mooy Lagros dafa aay ci ndaama est-ce que ndaama yi yii la wala du yooyu joxoon nga ko micro bi. waaw sant yàlla nag loolu yàlla nañu yàlla suturaal la ba moom jàmbaar dama jàmbaar ma leer na ma laamu du yàgg. Hmm. parce que dawul ma daw waaw moom day attaqué day gën a day gën a man dama xamal boo may dara. vite fait yi nga doon def gars yi arbitre sifflé mu jeex man nga ko def Lac Rose mi man nga ko def bëgg naa ko inshallah bu taxawee man nga ko vite fait bëgg naa ko inshallah Lac na boo taxawee mu vite fait la jëlee la fi Lac Rose e bul coow waa eh, eh, bàyyi ko boy mi nee kon mu ngi noonu le deux lay doon fële ci arène nationale Abdou Lahad ñoom ñaar dañu joxante bi le deux waaye si ñu añee tey am na patax am na ganaar am na cuuj am na xati dum tudd grand dia directeur Sapronet grand dia le président Sapronet macha jërëjëf kon mu ngi noonu Ibrahima yi kaay Ibrahima yi kaay soxla kaay. kër Jibi Dia kër Jibi Dia. ci loolu daw nañ de waaw.